dal leen ak jàmm seen hebdomadaire ba dikk na syndicalisme point net ubbil yéenekaay bi léegi moom borom entreprise yi saa yu leen neexee jël saa yu leen neexee dàq licenciement abusif entreprise yaa ngay fësal seenub doole Cheikh Ndong ab liggéeykat la nekk ab syndicat daal la taxawal ñu ne ko ca biti du fi amee Aïcha Ba moom ab client la ñu ko bëggoon a tëdduloo mu lank ko la tax naka ñu dàq ko ca biti IBEX moom dàq lu tolloo ko ñeen fukki employé ak benn gannaaw naka ba ñu bokkee ci organisation syndicale bu yaatoo yaatu naka moo ngi si syndicalisme hebdo ngeen mun ko faa jàngee syndicat syndicalisme hebdo àdduna ci jafe-jafe naka way retraité yi di dund ci jamono ji ndax nañu leen di fay naka moo tax boo muy naka seenub diggante waa IPRES ak waa poste naka safatul te mun naa yàqu saasu ne ci jamono joojee moom intersyndical des travailleurs des pêches naka moom xaatim ab grève boo xamante ni boo muy daanu si soobu ndax nee nañu naka dañu leen a bàyyee ak seenu bopp ak seen i jafe-jafe yu nga xamante ni ñoo ngi koy dund ci wàllum napp gi te gisaduñ seen bopp seen syndicalisme hebdo baa ngoog naka disponible na ci mbooleem distributeur gaaw leen fàggu si ngeen mun cee jàngee xibaar yu doy waar waar cent rekk rek lay jar ngeen mun ko am